éviction wu tafsir bi euh, daf la metti non moom ma gën a neex ci àdduna. lu tax xamul tax d'abord maa ngi félicité euh, dama mu bind moom yëg na ko dama bind félicité Bachir Diawara ñaanal ko dama ko ñaanal ci li mu gàddu parce que dafa remplacer koo xam ne kii bariwul wax tafsir lan moo ko fa tegoon du signature mais signalé ko fi dindi te bi ko Abdoulaye Wade Fall daf ko woo mu ñëw toog ñu waxtaan ay heure mu ne ko lii ak lii laa bëgg a def porte parole parti bi ak sama porte parole loolu la defal Babacar Gaye ñooñu ñëpp ku ci nekk fa la tegoon la leen fa tegoon moo fa teg sa morom nomination yi kenn du ko werante ak Abdoulaye Wade mais lan la lan ngeen di werante ak moom. mais li ñuy jóge nii du nomination. élection la woon Maymuna te Woré Sarr moom mu may dégg ñenn ñu may dégg am na ñu bari ñoo xam ne wax naa leen ne seen mort c'est programmé parce que li nga wax la dañu defe ne dañu war a indi ay xale teg leen fi et benn soubassement la ñu am benn soubassement d'explication mooy WhatsApp saaga notre notre parti est devenu léegi depuis l'accès euh, l'accès au pouvoir de de de Pastef qui s'est un peu si euh, la parole sunu partie mooy parti bi dàq saaga wax naa ko d'ailleurs ñëpp dégg ko gis naa koo xam ne ki saaga na ma dégg naa ko defe ne ne fàtte naa ko mais dama dama ko talagul dinaa ko faj par A ou pour B waaw dafa nànk rek dafa nank donc quand notre parti va jusqu'à ce ñu publier publier dans un journal à la une le PDS claire et obscur et dans l'opportunisme politique Abdoulaye mérite na lool. c'est une appréciation subjective. Ah, non, je dis, ah, subjective d'accord pas forcément ah, non non attends euh, non attends conforme non, à, la, la, à la réalité ça dépend yow bi nga nekkee di commencer journaliste daan naa dégg loolu di ko seetaan noonu en tant que communicant moo la fekk fële nga nekkoon ci fa amoon weer yi bari yi booru béy yaa ah, waxoo ma wala ma fekk ci beneen journal wala ma fekk feneen ne la woo ma dama bëgg wax ci di où sont communicat lu ñu man mooy na fi jógee nangam nangam nangam nangam non ça ne porte pas parti la jeunesse de notre parti d'aujourd'hui est différente de la jeunesse du parti tel que nous l'avons conçu ni nga gis euh, xale parti bi nga xam yow bi nga dajeel université ñi nga dajeel ba bërk démb nii boo leen gisee ñoom ña ku nekk fa nga dem ak li nga def ak li nga nekk di nga xam ne wute nañu ak nii un parti ay xale kenn du leen yore di leen jàngal rek changer profit defal defal profit nangam defal profit lii defal profit lii defal profit lii fii tuddal Moussa di saaga rek sotti. te loolu te ñu ko commencé jàng en 2016 ci parti